ay ci ñu déglu من بعدنا بتين الأصحاب من الرحيم وصليا يا إلهي وسيا حمادا أنا محمدنا المختار في القدم وقل فزعت بسوط مكة غلابا من بعد تسليتنا فين في ذنوبهم وصلي يا إلهي وقيام أبدا على محمدنا المختار في القدم بل سلت لا والرعاف عليهم كان إذ جاء في اثنين جلهم وصليا يا إلهي آه. وزيا أبدا أنا محمد المختار في الأقدام وقيل بل لا الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إثناء جلهم وصليا يا إلهي آه. وزيا أبدا أنا محمد المختار في القدم إلى القزاعة مع زالوا يلون إلى أن جاب سي الحلي لن خطب الكرم وصلي يا إلهي وفي انا أبدا أنا محمد المختار في القدم وقد نال من تزويجها نعما أبناء علينا أقمار فيما وصلي يا إلهي وسيك ملاجا أنا مدانا المختار في القدام باي الله جمعي اللوك يا الله دولي لير أمين واي أمين يا الله نغفف دي أمين nii la toppe xilaas bi naan maam Maodo si amoo morom jëfal nga yàlla sa tagg rësul ñëpp yeem tànti taggam ya nga ko tàng ba yeneen ba tàmbale nekk di leer nga tàmbale xilaasa zappi gandale

ca teenu zamzam Cameroon xëy sakk teen ba ngir ka ñaan ca joo wax nga nu ko wax nga nu abraaki ñayam wax la ko merloo ba mu jëm ca kaaba ngir màbb ko dem la ko ca dal wax nga nu ko wax nga nu baayam Abdoulaay takkiinu soxnaam wax nga baay ba ñaani ba ko may sëñ ba wax nga nu wax nga rësool kañ la juddoom wax nga ko dooñ wax nga ña doon ndokkeel yaayam bakkanam leer ya fa jolli woy nga ko wax nga rësool kañ la takkoon xadiija wax la mu jëloon ci ay gëléem ngir ca newoon xadiija Maodo woy na ko kañ la ko yàlla yónni woon e ko sosso bay mbay dund khurwa ba jibril fekki won aya ba jibril wacce won wax nga wax nga ga wuy ci bindon asaman yonent ya asaman nañu ko tero way nga ko wax nga nu rasul wax nu ñu doon teeru rasul wax nu ñu doon woyal rasul ci biir madina topp ko xasajru mu bay talaay raziqina min badina bitini asamina rahima wasalliyan ya ilahi xidaame ma wax ci Ismaayla tuut moo tax xasiida di Baay Mbay mu ngi ko taalif bi maam alaaji Musaa ñëw mi daan jiite jumaay seen Haj Malik jógee mu teeroo ko ko naan ma wax ci Ismaayla tuut ngeen xam di jël la ba jot bëggoon ko rey déglu ma tuut ما وي ولف اي ميرم وخلين تشسان مكه تاي وخلين دايام اجر لوي سبب بتا خليل خي سنجل كو مكه مي كرم ابراهيم اي خليل الله مو تخلد لي الله والله جفل يا الله نتنا لاي كبير ابراهيم ابقلم waaye nag daa am nattu Serigne Cheikh nee na yàlla boo dee waaye lu mu buub xëpp la natt bi mooy teelul woon it jur ay njaboot sëy na ba doon mag ñaan njaboot yàlla bégal ko ci njaboot te mooy Ismaayil ak rakam li tax ba Ismaayila mag Isxaaqa me ndeyam di jiitu ci kër Ibrahima coonoom te mooy aw këram sëy nañu diir juruñu saarata naagu ci juram buur misra may ko benn jaam te jaam ba doon ndaw ci atam saarata wax ibrahima xalilulaa yéene ko doom moo tax mu may ko booba jaam haajara muy taarab këram mu am ca Ismaayila me waaye gisal Saarata me moo ko mayoon Haajara me fii rek ko ko këram moo tax njaq si yàgg naa bax bax moo tax Xaliilulaay rawoon ki Cheikh bi wax dafa amoon ñaari jabar te amul lu benn néeg def ko këram Serigne Cheikh ne waaja daam ñaari sox sox kii am doom kii wànnent te benn néeg la yor te bu taalee làmp bi borom wànnent wi dinañ wut lu neex diw ba fëkk sama bët te bu ko fayee borom liir bi ni dinañ wut lu neex diw ba noppaaje sama bopp moo tax mu dar boppam ni bëgg naa taal bëgg naa fay moo tax xalilu laay rawoon ki seex bi wax dafa amoon ñaari jabar te amul woon lu benn ne def ko kër mu boole leen ci benn nekk kële nga wànnen kee nga toog jër doom ju ndaw kenn kanat naan taal bi daa leen ci bëtëm su góor gi ne kon na ko fay wasin bi naan ñuy noote tey sama liir bi kee naan nañ ko fay mu jaaxle lool ci biir këram cheikh ne mu dar ba ba ni cey bëgg na taal bëgg na fay looloo daloon xalil laay diggante saarata bu jëm mu jaaxle lool jibril mi jaas naan yàlla ni toxoo fi sës seet bi nag toxal ko ànd ak moom xijaas sañcal ko foofee muy këram xalilu xëy woo hajar naan ko fabul yow haajara te naan ko bul xalaat dara yoon wi ndigal la kon fabal nu dem xalilu xëy tëggu kawey ba wàcc baar booba ñu naan ko maaka booba muy alu kese ak dojam xaaru xira foofe la jabalu noor foofe la ne aboku sin faa bul fàtte tabir aw dojam xalilu samp foofa nekk nan ko dugal yaa moom sa ba muy fa buy dellu la yëg ci xaajaraat ci suxalam mu fanaan fa ay guddi tàggu ko aajara fanaane jooy mu fanaanaat fa ay guddi haajara di ko gunge nag waaye xoolal jëkkër bu gërëmee su ñaanee bal ba dal haajara ni ko katam jooy haajara naan ko ma fi baal mu naan ko la baal haajara woo yàlla ni giil déggal ibrahim ak waxam moo tax iil mooy firi yàlla ca seen làkk jabrail mikail azrail seen maam xalifa naan iil luxsurat lana ayamahu sëki Cheikh Aya watudo moo tax Makka gee jigéen ko sant sañ Ibrahima ñaan tàllal ajara tàllal mun a rabbana إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون نكو كنت تيمان يمشي لي ورا زمزم بن مي zam jigéen ju baax nangoo mu ñël jëkkër ja barke di cëram haajara toog di jooy ngir maru tar haajara jooy ngir jaaxle lool naan fu may amee lu faj aajoy ñaari tundam ca kanamam wee mooy safaawa ca kanam mooy mar wata muy yëg ba ndax dina seen fenum ndoxam haajara dem yéeg ca safa si nu gisul ca kaw safa am ndox ba wàcc na safa jëm marwata yi sunum ndoxam haajara baagante safa li mu juróom ñaar ca safa yéegat ca marwa kem safa gisul lu fa jarnu maram baagante boobalee waral sunu borom bi farataal ku dem ba wër néeg ba doxal bay na safa ki marwata yàlla ni ko sa tànk yooyu du niil képp ku wër sama néeg bi su doxul safa ak ma delloo ko ajam umra إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتوف بما ومن تتوى خيرا فإن الله شاكر عليه آية بوبو لسباي بيدنا إن الصفا والمروة وخطبارك وتعالى akub doxam haajara jooy amu ko woo naan ko na dellu fam mbawa haajara dellu fam mbawa fekk fa teen baakuk ballam waaye ku def ni yàlla ca rooti waay ndox maa ngi fan la ci wàllu nekk baam fu mu xam naa fi neex borom bi am kartan ci suuf ballum ndoxam ndox maa ngi baaw di tel tele ni géej di mel mele xaajara naan sa nekk bale wooy bu ko ma daal di am xalaat ci wàllu néegam tax mu tiit di ko fukk nag te naan ko sëm-sëm yooyu baat mooy turu teelu sëm-sëm moo tax sëm-sëm mooy dalal dalal ñi mënul sës naan sam-sam teen boobu ay million di ko boobu ba te du déey mukk moom la san maam Maodo naan bi bu sëm-sama amro tama asada وسليا يا إلهي وسليا أبدا على مولانا المختار في القدام زمزم موت جمايا جوهرا إذا أخرجوني إن كان في الحرام وسليا يا إلهي آه. وسليا المختار في القدام زمزم مولد جو خرج أخرجوا لي جوهر كان في الحرام أنا يا إلهي آه. وزير الملائكة أنا محمد المختار في الأقدام وبيزم يا يوم أخرجوني جوه كان في الحرام وصليا يا إلهي وزيد الحمام أنا محمد أنا المختار في القدم تيمان جمتي لورا léegi am na teet waaye yàlla nga koy wutali dëkkandoo tey maa ngi jëm ci li waral wéetaay wa deñ nekkoon mu jël dellu xamal la waral arab yi ñëw di ay dëkkam comme ma réew ndox yombu fa moo tax njanaaw yooye la fa nekkoon dinaaw ba dal si ngir naan ci teen beeku ballam yàlla dogal picc ya deew tiim teen ba sàmm mooma réew jur gum la si lépp ñu biiw ñu topp leen di seet ba ba ñu ñëwee yegg si taxaw fekk fa teen bu ni xelaw ak ajara doomam ju ndaw ñu jaaxle lool ci ay mbiram ñu naan ko lii luy sababam mu naan xali ba jëkkëram sancal ko foofi ngir wu jëm wa mer ba gën ne ko këram ba mu ñibbee saa ndox mi jeex doom di jooy sa xol dem na ba yeeg sax aw ma faj fenn maram ma jaaxle jooy am lu ma na ñëwal fi nga bawoo bi ma ñu ne ko yow yàlla la woon dañoo bëgg ñu soxla ci teen bi ro mu ni leen makka teen bi maa ko moom haajara leen sama teen mën ngeen ci root lépp lu ngeen soxla ci ndox wante du ngee amul dogal ci ay mbiram ñu ni ko d'accord na comme ay sàmm lañ te dañoo bëgg di ci wëgg suñu ñun kay d'accord nañ xoolal jur hum signé moom dëkkandoo ba mu nangoo ñu àndandoo sanc fa moom di dëkkandoo ba màggatal ne ku ngir jur hum ni ko d'accord nañ Ismaayila sa doom ji bis bu màggee bëgg sunu doom ñu may ko ko soxna Seydi Hadji Malick ne may nañ ko soxna maa fii ci Tiwaawan man Maodo te ne xam naa taaw ba naa bi la e ko sopp Seydi Hadji Malick waay hazikirumu bay talaay razqina min badina bi أسامنا الرحيم وصليا يا إلهي وصليا أباك أنا محمد المختار في القدام وحازجر يا من بعدنا بتين أسامنا الرحيم وصليا يا إلهي haajara wuuf ismaila ba muy jëkkër ba ay atam di mat fukk ak ñaar ba xelam di ñor la gintu baay ba am wala juróom ñaari at ibrahima ay wuuf ay ku ko defoon ñamax juróom ñaari at ba mu ñëwee xàmmewul dëkk bi ndax sept ans ku mu laaj di laaj kër gi te yàlla ni ko xoolal rek yaa jóge ci sa aaw may ko doom wa basharnaaha bi ishaqa nabiya min asalihin واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا waaye ni ko boo demee sa taaw ak sa ñaareel yaa ni woon boo amee taaw di nga ko rey rey ko mottil ni sa xaliilu xëy sant ndeyam naan ko solal ko ay sërëm damay sàmmeek moom bañ mu xam ni daa fasoon yéen ak reyam iblis am korbe keroog ba jabi moo bon dafa foog ni man la jax jaxal keroog xolu reyam bañaan ki am ndax dafa ñëw ci haajara di ko yëgal naan haajara xaliilu mee narul dara lu rey sa doom jee ci dof haajara naan ko yow de waay yéem naa la fu ma sa gis am benn taaw xëy di ko rey wax ma leneen ci ay ay mbiram seytaane naan rey koo war mu yor paakaam bee gisal yàlla fil lamiña mu ni xaliilu neey daa am ndigal bur yàlla sant ko reyam waaye déggal tontul yaay haajara naan kon war na ko yàllaa ko moom xëy bind ko bu nee mu rey sañ na ko na daal di def ay ndigalam mu ni wëndëng fa xaajara mer lool di pipp xaajara ngir pexe mi sooy fi xaajara ndax mënu la yàq pas-pasam mu ni yaay jiite na ma naa daw dabi bàyyi jaar ko ci santiment seytaane daw dabi xalil naan ko sa doom ji di xelel nim lu nuroo loo ko naral xanaa du rey maa ko yërëm mu ngay jooy jooylu te am na ñuy jooykat te gëmuñu ci tus mooy la lëg-lëg yeef bukki daa yor paaka di nax di nax njamal naa ko jamal kaay wisi te dama du kum Kolal munan jamal ak kay wissé jamal seen pak su ko ne jamal ak kay wissé mu ni sama yaay duma woyé pak jéem na banaa du ci pexe magum pas-pas kenn mënu ko tekki mu ni na xamal doom ji ba xam li bàyyi bi nar ci ay pexeem ndax mu ragal rànkub rayam ba mu ñëwee xamal ko ko mu naan ko bàyyi ba sëñ na ko ak i njureel rey fayu ko faf nag mu am ca ndigalam seytaane naan ko yaay xaleel di fookare sa bay xaliil narul ci yow tey ji dul rey la ni daa am ndigalam ba mu ñëwee xamal ko ko mu naan ko baay boy sañu na ko ak i njureel rey fayu ko faf na mu am ca ndigalam seytaane nag lank taxaw di dagge ak moom ngir na bew da bëgg Ismaayila daw li bay bi nar ci agrayam Ismaayilay for xeer yu di koko sànni mu di daw ñetti palaas la fa taxaw mu tul bët baa ki dojam ñetti palaas ya benn baay jamratul la benn بن باي جمرة الوسطى بن باي عقبته أكيد جام شيطان فف نارو بوي فوفي مدون تخوبتي قدام مكة ساني في دجدي فاتلي خلال خليل كنت نمنا سكو خمال لمنرا doom jani sam anta ata bàyyi topp naa ay ndigalam moo tax oustaz Mouhamad ñaar rek a fi nekk samiana wa ataana dégg nañ topp nañ jullit wax ak samiana wa asayna dégg nañ lànk nañ yéefar yi wax lool xalilu continue ni na so xamal la mu nara doom jani sam anta ata bàyyi topp naa ay ndigalam xalilu naan yow sama doom lay xamal ni sa moo ma yëgal ci gént doom nee la rey fii ngir jëmmam yaa bunay inni ara fil manaami anni yadbahu fanzur maada tara qaal yaa abati fal maa tu'mar satajidni insha allahu min sabirin seetal ci loolu ko seetal ci loolu say xalaat mu naan ko bàyyi aw xalaat ci bàyyi bu yàlla jox xalaat reyloo ko doom ja ngir jëm yi xalaat laa am bàyyi gis naa ni bu ñu rendee gàtt day wéqu ba sedd te boo takkul samay tànk takk samay loxo baay mën naa wékku mbëkk la gaaj la te mag nga baay boo may xool ma lay xool njureel dina tax doo def li la sa borom sant kon takkal samay bët baay comme photo amul booba mu jël mbubam jox ko ni ko joxal ma ko sama yaay souvenir xaliilu tël ko yeew loxo yeew ay dëggum takki bëtam ci boppa baay ci jooja doon ci jooja yaay am na ngërëm xaliilu boobu baakam bu baax ci baatu tam baax baat bi takkul muy boobu xëx daggul mu jaaxle ci mbiram yàlla ni ee paaka du dagg may dagg ci paaka ibrahima maalu musalool ca safara qul naa yaa naaru kuni bardan wa salaaman ala ibrahima waaye ndegam ñi mën a defar tul rek ba paaka du dugg weñ gi du dugg nit mas na yàlla bur yàlla addu foofa woo jibril mu ñaw mu addu woo xalil te naan ko jànki woo dëggal nga maa des ci ju njootam bur woo jibril mu naaw naan ko debal aljana gaaw ga jël fa xar ronal ma gaaw ca suufi doom ja muy njoteem te bu doo ibrahima doore paaka bi ci xeer wi xeer wi toj waaye mu dakk dakk dara dakk xoolal mu tiit bismillah allahu akbar ren di ne ni caay mu sëkk gis mu gestu gis Ismaayil ca wetam waaye def leen ñu màggal kat tudd yàlla Ismaayila naan baay allahu akbar loolu waral hidaaya ngay rey ca mag te moo waral tëbëski bu ñuy fi ñu koy def buur yàlla sant na bi mu def ko fee ci aw ñoñam moo tax allahu akbar ibrahima ko jëkk a wax waaw waaw subhaanallahi hamlatul arshi ko jëkk a wax malaaka yen woon arshi yàlla daa tabax aras ni yenu leen ñi mu diis mu ni nee subhaanallahi malaaka yi subhaanallahi mu woyof comme këyit ci ñoom laa ilaha illallah yontu yàlla nu xa ko jëkk wax bak bak bato ban koste laa xawla wala quwata illa billahi alali lazim ki ko jëkk wax mooy sayiduna muhammadu rasulullah alhamdulilahi ibrahima ko jëkk adama ko jëkk wax bi ko yàlla tabaxee ba sol ko ruux ruux bi ñëw ba fii mu tisili yàlla déy ko mu ni alhamdulilahi rabbil alamin malaaka ya fa nekkoon ni ko yarhamukallah mu ni yaxfirullahu tax boo tislee ni alhamdulilahi rabbil alamin ka fa nekk ne la yarhamukallah waaye tisli ni kaam mbaa nga tisli ñu naan la à vos souhaits waaye kon yàlla yàlla def xoolal islam isxaqa mooy maam juróom-ñetti junni yonent ñépp ay yonent Ismaayila mee ca Makka benn set rek kott dong kooku moom la ko yàlla may kooku mooy Seydina Muhammad Rasulullah waaye fu def ni yàlla ko siyaare Muhammadun Ahmadu maaxi wa xaasiro nabi marhamati tawbin multaxama wasalli ya ilahi